ñun ñoo nag tànn def visite de proximité pour mën a waxtaan ak yéen xam exactement lan mooy seen i préoccupation dëgg la sax am na lu ñu ci xam lu bëree baree bari mais bu ñëwee ba fii fekk si leen fii dana tax ñu mën a waxtaan ak yéen bu baax a baax a baax a baax xool la nga xam ni président sant nañu ko ndax lépp mot na boo amee lu ci manqué ñu xool nañuy def ba mottali ko ndax président opérateur économique dañu ko intéresé te wax nañu ci lu bëree bare bare bare bëri may remercier daayira yi fi nekk yëpp xam naa ni derrière votre organisation ay daayira ñu ngi ci yoo xamante ni seen i kilifa ñu ngi fi ak ñi nga xam ne ñoo yilif marché bi marché ti leen nag marché bu yàgg la def naa ni ku juddoo Dakar màggee Dakar xam nga marché ti leen muy marché bu am solo ci koom-koomu réew mi ngeen aussi ñu jàmbaare di liggéey président Macky Sall li mu bëgg moom mooy gën leen a jàppale ndax bi mu ñëwee dafa fekk réew mi ci ay jafe-jafe boo ñëwee nag fekk réew mi ci ay jafe la ngay njëkk def mooy jafe-jafe yooyu nga jéem ko saafara boo amee ko feebar bu nekkee ci urgence dafa am loo koy njëkk defal defar bu urgence bu ci jógee nga jéem a xool maintenant nooy améliorer faj bi si urgence la ñu nekkoon ci juróomi at yi loolu moo andi woon projet yu bari yi bu ngeen fàttaliku fii yëpp ay groupe électrogène la woon amul commerçant bu amuloon groupe électrogène defe naa ni tey seeni i groupe électrogène soxlaatu leen ko loolu liggéey bu bare nekkoon ci moo nekk ci ginnaaw kooku yàggul juróom-ñaari at la rek te juróom-ñaari at ci réew daanaka bariwul yéen a ngi fàttaliku ndoxu manqué ndox bu bari bu fi amoon wàññeeku na donte jeexagul am na yu bëree bari yoo xam ni wàññeeku na ci insécurité bari woon na fi lool mais xam nga ni tey bu ngeen xoolee suñuy force de sécurité gën nañoo taaru ci yére yi sol gën nañoo taaru ci matériel bi ñu yor te loolu yëpp président defewu ko lenn lu dul li aar askan wi. bu ñu fiy ñëwee nag ngeen ñu jàkkaarloo ngeen wax ma problème mu financement dañ ciy sawar lool problème mu financement problème la ci sunu réew yëpp mais Sénégal a tane ci UEMOA waaye tane ci UEMOA tekkiwul ni. lépp loo xam ne war nañu def nañ def nañ ko moo tax président bi mu xoolee mbir mi xam ni banques yi dafa jafe mu indi DER def ci fanweeri milliards. gulet projet bu day noonu génnee lu day noonu mu dugg ci askan bi doyul nag moo tax président jox ñu ndigal que DER nañ ko yóbbu cent milliards. moom ci moom annoncé na ko incha allah at bii ñu nekk ak at bi ci topp bu soobee yàlla DER dina egg cent milliards. muy tekki lan fu ñu doon def benn danañ fa def ñett kon fii bu fi benn nit amee ñett dinañu am defe bu ñu ko jàppee noonu rek bu bu yàggee ñu baree bari dinañu mën a jot ci mbir moom wax ngeen fii aussi am na loo xam ne tudd leen ko waaye ñun dinañ ko tudd muy problème mu assainissement problème la fii ci Médina président nag dafa bëgg ci pro mandat bii di dugg mbalit mi bañ a amati kooku foog ñu xoolaat problème mu assainissement commencé woon nañu président commencé na projet assainissement wu fukki ville parce que fii assainissement bi fi nekk 1950 la xam nga kon yàgg na du buñ ne président waroon na ko def déedéet def na leneen mais xalaat ko étudier ko ba léegi di ko def je pense que le mérite se situe à ce niveau là ndax balaa ñuy wax waxi assainissement ti leen régler problème mu inondation yi fi amoon ñëpp a ngi fàttaliku inondation yi fi amoon 2009 2010 ba 2011 inondation yu bëri fi mu nekk nii ñëw ñu jeex na waaye wàññeeku na lool wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax donc il faut que ñu jublu naa ci assainissement ñi nga xam ne am nañ ko mais nit ñi ëpp nañu équipement yi fi nekk tey Médina li fi nekk ci assainissement nit ñee ëpp loolu donc il faut que ñu xoolaat projet programme assainissement et incha allah gouvernement bi def na ci def lu ci war alal ji teew na bu soobee yàlla ci at bi ñuy dugg Euh, assainissement wu capital bi li ci ëpp dinañ ko commencé du jeex nag ci benn at ndax programme d' assainissement lu gudd la parce que dama bañ ñu wax ni président Macky Sall ñëw na fii diggee nañu déedéet lépp lu ñu leen di wax day fekk ñu teg ko ci anam yu yu yu wóor moo tax ñu leen di ñaan le 24 pour loolu yëpp mën a nekk ngeen jàppale président Macky Sall ndax ñi ndax ñi fiy dugal seen ñi fiy def seen alal di jàppale Sénégal dañ koy wékk ci confiance te président am na confiance boobu communauté internationale wóolu nañ ko ndax liggéeyam ndax xarañam ndax bëgg réew mi mais surtout ndax am plan ñu bari nag ñu ngi fi di xëccu réew mi mais tey jii amuñu leneen lu dul xasante saaga mais waxuñu programme boo xam ni moom moo gën li fi président Macky Sall teg kon ñooñu dénk leen réew wóorul dénk leen réew waruñu ko sax xalaat démocratie nag may na leen ñu ñaan ñu laaj ko dañoo bëgg nag yéen fii ci marché bi fii ci biir Médina ngeen takku jàppale jàpp ci ba élection yi bu jotee parce que marché ñi fi nekk ñu bari duñu voté fi ndax dëkkuñu fi dañoo bëgg fi ngeen dëkk ak ñi leen di seet si fii ak élection yi ngeen waxtaan ak ñoom xam leen xam xamal leen ni benn candidat moom amul ñaar mooy président Macky Sall moom moo yor bulletin bi am photom marron beige yor nga bulletin bi mi ngi nii marron beige am bopp fas bi amul keneen ku ko am jàppaleen ci boobu incha allah Macky continuer liggéey réew ah nun nag suñu xel dal parce que pourquoi suñu xel dal mooy marché ti bu ñu choisiroon dem feneen man ma ànd ak ñoom dem foofa waaye comme dañoo choisir ànd ak fi nga xamante ni moo nekkoon sama xel nekk suma xalaat te kuy gëmbool gis nga ko jàpp naa ne loolu day noppal kilifa ci la mu yilif et je crois que le président Macky sal lii nga xam ne moom la ci réew mi jàpp naa ne ku gumbawul aussi gis nga ko beneen bi mooy mënuñu toog sa peer yi nga xam ne ñoo nekk ci Afrique gépp ñëw daje toog ñi nga xamante ne bi ñoo toog ñëw ne Amadou Ba c'est meilleur ministre de finance waxuma ko de nit ñee ko wax le meilleur ministre des finances te jàpp nañ ne réew moo xamante ne bii bërki démb le président de la république dem di dajal ak bailleur de fonds yi bi muy dajal ak bailleur de fonds yi am ñu nekk ci réew mi di ay sénégalais comme ñëpp nen nañu tànk ba président de la république du réussir loolu jàpp naa loolu du bëgg réew waaye ba ñu demee yàlla dafa leen sutura ba plus de douze mille yoo xam ne jox nañ ko président Macky Sall mu war a ñëw engagé deuxième phase su PSE je crois que loolu koy sénégalais te bëgg réew mi defe naa war nga mën a jàpp ci loolu. beneen bi mooy jàpp naa ne ah man day dama wàcc dem suma kër soxna bi ma demee mu teg ma ginaar te man ñaare mbaxal ak keccax laa daan ci bi ma ñëwee toog mu tegal ma ginaar ma ne ko ah waaye soxna si lii lan la mu a ma damaa fay ko sama bourse familiale ma ne ko ah bourse familiale nu muy demee mu a Macky Sall ma ko jox ah, waaw léegi ma ñëw ñu indiwaat ordonnance jox ma ma ne ordonnance bi waaye yow soxna si yow demal teel a job lii xam nga nii man fi mu nekk ni maa ngi nii xaw ma lu may nelawee mu ne ma na sa dal ma ne ko ah mu ne ma séen baa ngi fi doo joxe dara nijaay dinañ du faj te doo joxe dara waaye dama ne dama ni. ñun secteur informel ku ñu jàppale la ci loolu jàpp naa ne mënuñu lu gërëm la te jàppale ñaanal la yàlla pour nga avancer beneen bi mooy soo demee ci dans le cadre des financements DER FONGIP yooyu yëpp ñoo ngi fi nekk di financer ñu xam ko te loolu lépp presque booy xool secteur informel moo ko tax a jóg kon nag dama ne le président Macky Sall li mu def ci secteur informel amul kenn koo xamante ni kii mos nga ko def dama ne boo demee ci secteur de l' élevage soo xoolee fi la ñu mës a gisee président la président boo xamante ni bi ñëw nga jàppale élevage ba soo xoolee élevage amul kenn koo xamante ni gi sañ nga ne maanaam gisuma sama bopp te ngay liggéey ci élevage boo demee ci pêche moteur yi gilet yi euh, gaal yi yëpp président de la république da ko da ko soo demee dama ne ci agriculture soo demee agriculture dégg naa benn waay buy wax naan eh, illeer yi ngeen di béy nangam nangam ma ne ko mais dañu motoriser léegi agriculture ñooñu dañoo tardé léegi dañ ko motoriser donc le président de la république ba muy ñëw fekku fi presque cinq cent mille tonnes yoo xamante ni moom la béykat yi bay maintenant nous sommes à plus de un million et quelques de tonnes yoo xamante ni moom la ñuy bay loolu mooy lan dama ne dama dama ne loolu est-ce que du avancement est-ce que loolu du développement dama ne investissement yi mu def ñëw commencé ko ci biir jam ñaajoo dama ne nañu xool jam ñaajo dañ la ne pays mënta développer sans investissement je crois que la président Macky Sall a assez investi dans dans le Sénégal kon nag ñun du ñu man lu jàppale ko li am solo nag mooy bu ñu kenn xooxatal bu ñu kenn tiital en tout cas ñun au niveau ti len kenn mënuñu xooxatal kenn mënuñu tiital jëlee ñeen suñuy carte huit heures bu soobee yàlla su ngeen ñëwee daa ngeen gis ne daañu toog massivement woteel le président Macky Sall pour que au premier tour ñu gagné affaire yi monsieur ministre maa ngi lay xamal ne mars ti leen nag suñu jigéen yi fi nekk góor ñaa ngi may koba ci suuf soxla nañu financement suñu dajee ak ministre des finances gars may wokkot ak di ma xool mais nag bu ñu dajee ministre des finances dañuy waxtaan ak moom suñu bëgg a bëgg parce que namoon nañ mu ñëw fi te bëggoon na ñëw bi gën a mel neneen kon nag su ñëwee daañu wax suñu soxla yëpp ba mu jeex jigéen ñi bëgg nañu financement ndax ay jigéen ñu sonn lañu ay jaaykat yi fi nekk ay jaaykat yi légume góor ñi kobos nañ ma nee nañ soxla nañu financement monsieur le ministre yaa yore financement yi kon nag noo ngi lay ñaan suñu modernisation marché na nu ci jàppale financement góor ñi financement jigéen ñi na nu ci jàppale noo ngi lay ñaanal yàlla fan wu gudd di la ñaanal yàlla wér di ñaan yàlla bu nu jógee ci lii nanga nu recevoir sa bureau ñu toog waxtaan ak yow asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu